Abdourahmane Ba, yow yaay coordinateur de pilotage du mouvement des ressortissants du village de Ngidjilone au Sénégal tey nag ñu ngi lay fekk fii ci euh, fii en France tey nag ñu ngi lay fekk fii ci foyer bu Bologne ngeen di woote rassemblement euh, ci ci ci ci ci taxawaayu euh, dooleel Macky Sall tey jii lan moo lan lan lan la ñu gën a mën a retenir ci li ngeen waxante ci salle bi. bon mbégte bu rëy la ñu am si lu ñu daje

pour nous, ngi aussi pour bu pour pour mu pour ba Sénégal ñëw def gis def ak ñun ak président Makissal, Sall di magnifier lu muy def aussi euh, informer nit ñi si li muy à euh nous, pour affaire bu la parce que content nañ bu baax dañu xamné wa suñu dom dom commune Nguidiouloune mu ngi liggéey def liggéey bu reuy au Sénégal mu ngi def liggéey bu reuy ci commune euh, ci commune bi euh motax ñu dajé fi waxtaan ak suñu mbokk pour ñu lal ay pexé euh xol nu ñuy dimbalé suñu dom nu ñuy dimbalee suñu mag nu ñuy dimbalé suñu frère nu ñuy dimbalé suñu nijaay. est-ce que lolu mën nañu xalaat ni politique au Sénégal tay dolé mbé dañ ko fas yéene féetalee France surtout ci foyer mi nga xamné euh buñ koy wax a toujours été le parent pauvre de la politique. amna président yu bari ñu fi jaar ñëpp dañu né bis bo gagner France nga gagner Sénégal te ñun xamnañu suñu force fi ci France fi ko fi gis amna na famille bu rëy bo top ci ginnaawam Sénégal il suffit juste nga woté téléphone pour nga wax ko mu jappalé la ci li nga bëgg parce que l'affaire bi bon dimbalante donc du coup aussi des sénégalais de l'extérieur yi le pétrole du Sénégal le président Macky Sall importance bu mu jox euh, immigré président euh, sénégalais de l'extérieur donc nous, il nous aussi